moom moo ko wax man du man kay ba tey ci seen scandale du jour ñi déglu ji Alioune Sall. politique fi mu nekk nii moom mën daanaka aw ma ko ndax ni ma ko waxee woon gannaaw bi ñu ñàkkee élection présidentielle yi dama imposer suma bopp benn temps d'observation temps de réflexion ba tax na tey jii may wax ak yow vraiment aw ma activité politique. Euh, fini ñu toll nii amut amatuma benn activité politique. nous hmm. nu ngeen dundee défaite bi parce que benn moment yaa ngi àndoon ak candidat pouvoir fi nekkoon Amadou Ba comment vous avez vécu la défaite. waaw man euh, je crois que c'était une défaite attendue aussi hein compte tenu euh, wax dëgg yàlla ni ñu préparé élection yi difficulté yi ñu am pour tànn candidat biñ ñu ko tànnee feewaloo bi am ak difficulté bi ñu am démarrage campagne dugg ba ci biir campagne bi hésité ndax dañ koy jàppale wala duñ ko jàppale tamit ak vigueur bi opposition bi amone yooyu yëpp dem na ba euh, ak hésitation yi am ci date élection yi loolu yëpp tax na ba man personnellement euh, dugg naa ci combattre na ci jusqu'au bout waye xamone na c'était difficile de gagner. alors benen euh, actualité. première baril de pétrole bu nga xam ne euh, Sénégal euh, génne na ko euh, ñu coow li bari woon na. Mm. manque na nañu manque nañu pétrole bi jaay nañu ko yow tuumaal nañ la ci <laughs> gars yi di la laaj seen i quatre cent mille ak yi kenn xamul ne <laughs> tey jii avec le recul naka ngay analyser coow li fi amoon lépp ak li nga xam ne fa la mujjee ba Sénégal génne première baril am. waaw fan yi ñu weesu dëgg la lii gone yi wax buzz bi moom amee woon naa buzz bi ci waa finalement pétrole bi génn na kon xanaa. Aliou Sall moom da ngeen koy remboursé ay quatre cent mille am mais man affaire dama jàppalee rek parce que man en ce qui me concerne mënuma ci wax wala def lu weesu la ma ci waxoon ak la ma def. xam nga bu mbir amee nga dem ba génne alxuraan wàcc mënatoo wax lu ëpp loolu. mënatoo def lu ëpp loolu. Euh, leneen li tamit mooy dëgg la man affaire bi mu amee am na lu bëri yoo xam suivre ma ko woon ci actualité. Mm-hmm. léegi nii ak recul bi ak vaar yi ñuy def lay dégg yenn déclaration homme politique yi. mais le plus important c'est que moi j'ai tourné la page j'ai pardonné ça me fait sourire et je souhaite que pétrole bi gaz surtout vraiment, il vraiment a na Euh, ñu jàppale moom suqali Sénégal. yan attente lañ ci mun a am dëgg dëgg dëgg ak yan impact la mun a am ci dundu sénégalais yi exploitation per euh, euh, pétrole ak gaz. sincèrement man yaakaar naa ne pétrole bi ak gaz bi li nga xam ne ñu ngi koy commencé exploiter ak surtout li am te tàmbalee guñ ko parce que gaz bi dañuy wax rek waaye ñu ngi waaj tàmbali exploiter Saint-Louis mais surtout Kayar réservé fa nekk mu ëpp téeméeri yoon. je crois que loolu yëpp bu ñu transformer radicalement Sénégal à condition que au niveau de la gouvernance Madame Ninko Yore accepte de planifier son économie C'est ce ëpp solo bañ a rek yaakaar lépp ne lu jaay euh, bénéfice mën na développer Sénégal mais ñu permettre mu diversifier économie bi. yaa ngi ci secteur ba léegi wala génn nga ci. total génn naa ci tamit xam nga yéen yéen a ma pousse ba ma génn ci <laughs> secteur bi wax dëgg yàlla defe naa 2016 laa ci gën a laa ci gëj a gëj a impliqué wu. Hmm. mais nag maa ngi koy suivre de très près parce que j'ai eu la chance d'avoir participé à l'aventure de la découverte du gaz loolu tamit nekk na loo xam ne man am naa ci fierté trop. ñëpp nee nañu gaz bi moom moo gën a. amal njëriñ sax Sénégal que pétrole bi ci wàllu ci wàllu impact ak lu ni mel ndax loolu euh, wér na. waaw loolu moom man defe naa ne wër na d' abord en terme quantité yi ñu mun a exploité ak koom gi ñu ci mën a indi gaz bi moo yoon ci li Sénégal ñaareel bi mooy xam nga jamono. waa léegi man damay laajte léegi damay laajte rek. waaye ñun Alioune sàll bu ñu yéen ñun Alioune sàll bu ñu fayoon quatre cent mille yi waaye man tey fan laa jëlee quatre cent mille ya ma remboursé. yéen nag ñun naroon nañ dugg ci gaal bu amul kii de gaal boo xam ne du teer waaye yéen ñun man damay laajte ñun léegi supposons Alioune Sall suñu quatre cent mille Alioune Sall suñu quatre cent mille waa léegi ñun Alioune Sall bu amoon bu amoon bu amoon exemple supposition Alioune Sall bu joxoon ku ci nekk cent quatre cent mille francs waaye ñun fan la ñuy jëlee quatre cent mille yu ñu fay. man fi réew mi toll fu ñuy jëlee 400 ay ñun yàlla yàlla nag ndekete bëgg nga man nag li may naan yàlla mu ngi ñuy seetaan ndekete yàlla bëgg yàlla bëgg na waaye yéen Aliou Sall <laughs> eh, ndeysaan moo gore kay nee na baal na ñëpp man de mosuma ko laaj quatre mille waaye nag na ma baal ak ndax commentaire naa ci la ma ca commentaire mooy bu dee la du yoon loolu moom wax ci parce que nit ñu ne tamit booy nettali da ngay nettali yow it li nga waxaale waaw te booy nettali dangay ngay nettali maanaam diw nee na la lii bu noppee da nga ne yow diw bi waxee bi mu bi diw bi mu waxee lii yow loo ci teg léegi nag Alioune Sall xamal nañu ni yoraluñu tous léegi ñun dama ne man ñun bu ñu ko yoraloon ñun fu ñu jëm. ñun bu ñu yoraloon Aliou Sall ñun fan la ñu jëm ci mim réew cent mille fi réew mi toll dëkk bi nga xamante ne métti na koo wax sa soxla mu ne la soo soo ma yëgaloon doo ma ko wax maa la koy njëkk ñëpp tout le monde pleure y' a pas de argent y' a rien du tout. xam nga école da daan tëj rek booy ñoo vacance booyu amuñu paas bëgg nañ ñoo vacance mais yoruñu paas maanaam ñi dëkk ay ay ay Ziguinchor ak Kolda yi nga xamante ne paas ba six mille sept mille jëm kaw la yoruñu moo tax fu mu nekk nii xam nga heure bii danaan fekk géej gi ne nii te bag bi du excuse de parce que am ñi ñi ñi deful bag ñoo gën a bëri gisoo leen kenn xaalis amut xaalis amut ren vacances sax maanaam nga buux say bagage dem vacances kër jàmbur sax sonal nit ki la yoruñu surtout ñun Ndakaar gi lu ñu am paasee ko yoruñu léegi nag boo ci tegoon boru quatre cent ay ñun waaw ah, yàlla baax na yàlla baax na yàlla suturaal nañu ba wala dafa am ñi amoon ci quatre cent mille yi waaye géejawaay waaye baax na